bismillah wàllum góor jigéen day ci réew mi le ah ci àddina mukk ci àddina tribune yéene kaay ne dooleel nag wàllum góor jigéen googe waaw président Macky Sall day nee na du ca dal jamais non le soleil yéene kaay ne président Macky Sall day xamal na premier ministre bu Canada bi le waaw ne ko gis nga ñun suñ société wi moo nanguwul wàllum góor jigéen pour muy leer ñëw laase daganal nag wàllum góor jigéen kon ci Sénégal gi waaw président Macky Sall day kenn mënu ko critique yéene kaay ne dama ne Sall ci boppam kon daal dina koy yëkkati nag démb kon ca palais ba ba muy jàkkaarloo ak premier ministre bu Canada day Justin Trudeau waaw président Macky Sall nekk fa sax di jéem a xap de non ba pare daal di ko koy dóor nag ci ay olof yu nañ ngir bañ sax wàllam ji xii kon ci askan wa ne ko président Macky Sall defee woon kon ca fulla fayda ba muy jàkkaarloo ak Barack Obama day noonee ko xamalee démb premier ministre kon bu Canada wàllum góor jigéen Sall daal fa mu nekkoon la nekk ba léegi ni lé eh, la xamal tam premier ministre bi di Trudeau ne ko ñun duñu xëy mukk bu ëllëgee ñuy jéem a daganal nag wàllum góor jigéen kon ci réew mi lée eh. góor jigéen googee mel ni sabar gu tas non loolu mënul ne mënul ne Vox Populi ne eh, daganal nag wàllum góor jigéen googee waaw ginnaaw Barack Obama de président Macky Sall ah daal dinay téye premier ministre Canada kon turux da koo coincé parce que na daganal wàllum ko dul nangu laa la wax nangu waa nii muy doxee nii lé vraiment nice nous sommes à l'aise tey sàll ngaari lam tooro yéene kaa gi ne waa ONG Jamra day daal dinañ cay dugg parce que Mame Matar Gueye ak ñamu àndal waaw nee nañu kenn du fi légaliser góor jigéen incha allah incha allah exclusive yéene kaa ne gis nga wàllum góor jigéen googee waaw autoroute à péage ba ba ci train express régional di TER kii Macky Sall day bàyyi na tubaab yi de Macky Sall kay na tubaab yi ginnaaw léegi maa la wax li yenn ci askan wi la citoyen organisation yi mouvement ci politique yi waaw ñëpp ërtal Macky doon dal ci kawam naan ko da ngay parparloo jëndee réew mi kon nasaraan yi rawatina na kon français waaye Macky Sall fi nekk nii daa mel ni nam doon doxalee dee daa commencé soppeeku waaw gis nañu mbir mi kat léegi développement bi ci am jéego yi nga xam ne te président Macky Sall daal koy teg ci fulaak fayda ak njàmbaarte fulaay jaay Dakar de ndax bu njëkk bi day mooy tontu bi nga xam ne kon tontu na ko premier ministre bu Canada ci wàllum góor gendarmerie tubaab xel xalaatul sax xeer bii di daw ci weeru avril bii di ñëw te jamono joojee directeur général Sénégal sa Xavier Idée waaw nee na xel xalaatul sax ñuy négocier waa contrat au péage bi bi eh waay Samba mbete tubaab yee moom tali bi gouvernement wu Macky bi tamit di xam le ne Sénégal day dàqul sax nag dem ba tribunal yi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ca bitim réew di juridiction internationale yo dëgg la waaye est que France mën naa fase Sénégal <laughs> koom-koomu Sénégal gi ci boppam kon France ko yee ma SGBS CFAO Total Sénat Auchan Canal Plus Orange Money Fonroche Alstom TER ñoom ñaar ñoo rek xanaa lekk nañu lu ëpp junni milliards laa la wax Alstom ak TER bi waaw plus de mille milliards la ilaha illallah dama ne la koom-koomu Sénégal gi lée France ki teg loxo de maa la ko wax tribune yéene waaye nguuru Sénégal gi lée kañ lay respecté ay kàddoom le respect de la parole donnée liggéey a tas lañ laa la furaas daal di xidéen ña nga xam ne ñoom ñoo looru leen damit sa sises ke furaas daal di xidéen laa la wax ñii daal xaw kañ la ñuy respecté seen kaddu exclusive yéene kaa ne daw kon te pale bee waaw maître El day nee kii Mari Sagna dañ ko waroon dóor bal mu dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay waay jële ay waay jële la quotidien yéene kaa ne Lamine koy taate dee na mooy xale ya doon manifester maanaam kon te fatigué dee naturel méte ku feebar ak dee docteur yi daal lii leen wax dee naturel daal looloo tax nag ba ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee Fatick googee waaw mer nañu ba futu laa la wax ca kay ba docteur ba génne critique yéene kaay ne deewu Lamine daa moomee ca Fatick waaw ONG dee daal dinañuy xotti nag résultat yi nga xam ne ñoo jógee ca kër docteur ci autopsie ba libération yéene kaay lu bees day am na na ci coowal fàllu seen étudiant ba laas ne dëgg ñoo yegg ci ay gone yu fotee koogul ci nen ay xale yu ndaw mineur Olivier Brice Sylvain moomee ci enquête yéene waaw nee na moom ay massage dong la doon def l'observateur ne loolee dëgg bu ñu sukkandikoo ci xale yi ci boppam bi leen enquêteurs yi waaw am na ci ñoo xam ne nee nañu Olivier Sylvain mi lée yàq na leen de fooye na leen ba yàq leen les ko yéene kaay dañu koo tere day mu tukki ca Burkina Faso colonel Abdourahmane Kébé waaw yorul a fat laa la wax li jaaxal ñëpp ma ngay dialogue nag de ci noppam gi waaw Sud Quotidien wàllum grève yënga-yëngal yi nga xam ne kon moo am ci front social bi lée Mame Boye Diao ah nee na am na lu ñu waroon a def te defuñu ko ci lu jëm ci wàllum politique day waaw Mame Boye Diao nee na ñi nga xam ne nag maanaam dañoo bëgg a dugg ci atum politique bi lée nañ doon ay góor nekk jàmbaar takk seen fit bi lée wàcc ci lang def comme ni ko président Macky ba mu demee ba na soxoree Serigne Mbuub ca kaw la kee dee ca ndaw waaw nee na xam nga lan moo leen tiital li xale yi riir gis seen bopp ci Serigne Mbuub mi la ngir jëlee fi lii nekk ci diwaanu Kaolack Kaolack selta na Kaolack lëndëm na Kaolack bandi léegi fii la ñu def grand place reykatu nit yaa ngi fii dee ca ndaw ne waaye Serigne Mbuub day sénégalais bu bëgg kon réew mi jëm kanam ci développement mën ngaa def Serigne Mbuub mi ab seetu laa la wax maa la ko wax Cheikh Baye Cissé ci gi waaw ndaw yi de ngir nañ ñu jël yoonu Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass Niass Dakar Times day expliqué nañu nan la yeeyaa jàmme kon taxat Libéré ne mes exclusive yéene kaay góor day daa ñàkk ci àdduna bi de pénurie doom góor a ñàkk ni robinet bu tëj mbootaayu xeet di ONU ci boppam waaw ña ngay xamal soxna yi nag lu bariwul benn milliard xam nañu jabar téeméer ak fanweeri million ci ay góor ñu ci biir kaso yi juróom-ñaar fukki million soixante-dix millions am nañu feebaru xel téeméer boo jël ñett ya góor jigéen lañ téeméer boo jël juróom ya ay prêtre lañ catholique duñu am jabar téeméer boo jël jege Sénégal de ciib ciib gi ci soxna yi léegi mu jeex parce que góor daa ñàkk <laughs> waaye na gis nga ak lu góor rafle rafle rafle rafle rafle rafle rafle rafle ci mim réew wala ak lu góor ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk pétrole bi de kenn mënu koo fàtte de parce que suul gaz du ko teree xëy troisième mandat dañ ko fi tere te Guy Marius Sagna daa war a génn ci kaso bi boo paree mën a asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey jii ci biir colikaay bii di Sud Quotidien suñu naataango yi ñu ngi dalal directeur des domaines di El Hadj Mamadou Diaw ñu gën ko xam ci turu Mamboy Diaw moom nag tey ci waxtaan ngi mu li nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci biir APR maanaam daal ñoo xam ne nag dañoo nekk ci biir parti bi bëgg a wuutu Macky Sall wante duñu ko wone wante ñu ngi koy jëfee nag ci biir euh, parti bi moom moom nag di Mamboy Diaw di leen xamal ne su fekkente ne nag ñoom tey jii daal bëgg nañu nag daal di wane seen bopp faw nag ñu def comme ni préfet ci atum 2008 maanaam daal ba mu gisee ne dara doxatul nag ci parti bii di PDS dafa jël fitam daal di koy takk ba mu dëgër génn nag ci biir parti boobu Mame Boye Diaw daal dina ñëwaat tamit ci juboo guñ doon yaakaar ci diggante maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall wante it ñëw na ci yëngu-yëngal yi nga xam ne ñoo ngi koy nemmeeku fan yi yëpp nag ci mbedd mi ndaxte ñi nga xam ne de ñoom ñooy waa ñoo lànk dañ leen di faral di gis nag ñuy génn di ñaxtu yenn ci ay jafe yoo xam ne daal askanu réewum Sénégal jànkonteel ci wàllu gi ni met sax kii di Mame Boye Diaw di xamle ci biir colikay bii di Sud Quotidien ne gouvernement bi bu defoon li ko war daal mën nañu wax ne tey ji doxum ñaxtu yu bëri yooyu duñ ko fi nemmeeku ndaxte moom moom di Mame Boye Diaw daal dina gis ne am na yenn ci ay question yoo xam ne nag askan bi dañu koy fësal te ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi duñu teel a génn ngir daal di joxe ay tontu moom sax mu gis ne su fekkente ne a daf lay wóolu ndaxte lépp loo xam ne dafa jublu ci wàllu xibaar euh, ci wàllu gi jox nga ko ko ba mu mot euh, sëkk muy waxtaan bu yaatu boo xam ne nag na ko ak suñu naataango yoo colikaay bii di Sud Quotidien njiitu gu njëkk bu réewum Canada di Justin Trudeau démb ñu ngi doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi yoo colikaay bi di Le Soleil du ñu xamal ne ci ndaje boobu nag Macky Sall daal di xam xamle daal ne ci wàllu mbirum góor jigéen moom kenn du ko dëggal nag fii ci biir réewum Sénégal ndaxte suñu aada nangu ko suñu di diine it bi di la soleil ne kon dafa mel ni ne njiitu réew mi moom dafa bëggoon nag ñu ndarkeppe lépp lu jublu nag ci ji ni mel coolikaay bi di 24 heures kon léegi leer na ci wàllu moom góor jigéen ñu daal di koy dëggal nag fii ci mim réew daal mag Macky àndu ci tey àndu ci ëllëg coolikaay bi di laas di ko ci yokk di ko xamal ne njiitu réew mi moom bëggutul sax ñu yeey yàbbi nag jëmale ko ci wàll gi ni mel ndaxte moom nee na nag tànk ma ngay nekk njiitu réew fii ci mim réew daal kenn du fi légaliser lépp lu jublu ci mbirum góor jigéen yéen culikaay bii di Vox Populi ne ginnaaw ba mu ko waxee kii di Obama Macky Sall it fësal na kàddu yi ni mel nag joriñ gu njëkk bu réewum Canada kii di ma Mame Mactar Guèye te mu jiite nag Jamra moom it di xamle ne fii ci biir Sénégal moom incha allah kenn du fi légaliser lépp lu jublu ci mbirum góor jigéen ñu jukki nag jëmale ko ci mbirum maître Abdoulaye Wade ndaxte tey ji direct news moom mooy laajte lan moo waral nag tekk tekkaaral bi nga xam ne moom la maître Abdoulaye Wade nekkee moom mën nañu wax sax atum 2019 ba léegi daal kenn déggatu ko nag muy wax jëmale ko ci wàllu politique wala boog ak leneen lu mu mënti doon tey ji sax suñu naataango yi seex ci waxtaan ak ñenn ñuy jàngat lan moo waral nag tekk tekkaaral googu ab luubal lañu nemmeeku nag ci ndàmpaay yi nga xam ne nguur gi daf ko jëloon ngir jébbal ko ñenn ci ñi nga xam ne nag dañoo nangu seen kër culikaay bi di libération di ñu xamal ni ginnaaw enquête bi la ñu teg loxo nag homme d'affaires bii di mata Diène ndaxte moom daal am na ne daal daf koo dugal ci poosam te nag koppar googu dañu ko waroon a jox nag ñi nga xam ne daal tey ji nguur gi dafa nangu seen i suuf wala bokk seen i euh, kër muy nag mbir bu doy waar beneen mbir bu doy waar ngi nii nag culikaay bi di enquête moom la daal di xëyee moom mooy responsable cellule performance ca AS Dakar Sacré-Cœur moom mi nga xam ne nag caabi yi féete na ko gannaaw ndaxte la ñu koy tuumaal moom mooy ne dafa doon sàkku ay xale yu góor ñi nga xam ne daal ñoom ñoo ko ci biir centre bi culikaay bi di enquête du ñu xamal Sylvain moom de ba muy jàkkaarloo ak ñi nga bi nag bépp tuuma boo xam ne daal dañu koo teg ci doddam moom mu daal xam leen ne musul nag ak xale yooyu moom kay la mu doon def moom mooy ay séance de massage dong la culikay bii di enquête mi ngi ñu xamal ne moom fu mu nekk nii dañu ko placé sous mandat de dépôt jeexale ko nag ak wàllu lamb ak culikay bii di suñu lamb ñu ngi ñuy xamal ne staff bu Boy Niang ñoom de fu mu nekk nii nag bañu ñëw seen mbër bii di Boy Niang daal jàkkaar jàkkaarloo ak ki nga xam ne de moom mooy Balla Gaye numéro 2 wante nag ñoom ñu ngi xam ne daal ne mbir yi nag du yombee noonu ndaxte daal balaa kii di Boy Niang 2 di daje ak Balla Gaye numéro 2 faw nag ñu daal di koy jébbal koppar gu toll ci 90 millions lii moo nekkoon ba jullikat yi li gën a fës ci biir jullikat yi ñu leen di ñaanal njaxtu bu sag